sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di remercier euh, population jëppal Derklé yëpp muy ñi ànd ak ñun ak ñu àndul ak ñun parce que gis nañ euh, ci dëkk bi am na ay gox yu xaw a tàng mais ñun vraiment gis gisuñu fii dara loo xam ne jege na ay violence maintenant journée bi jeexagul ñu ngi demandé nit ñi comme niñ ko gisee boobu ba léegi six heures du matin ba léegi ñu ngi coordonné macha allah euh, centre euh, Ibrahima Seck Castor euh, ça se passe bien amoon na tuuti retard rek mais c'est bon jëppal Ibrahima Koyte c'est bon fii aussi nga xam Derklé 2 nga xam ne mooy centre bi gën a mag vraiment gis ñu fi benn jafe-jafe ñu ñaan nag lii continuer et puis euh, kii jël ndam li jël ndam li euh, ñi nga xam ne euh, yàlla ñu am ndam ñu accepté et puis ñu commencé nag liggéey parce que lii ëpp solo mooy li population yi bëgg ñu tàmbalee liggéey bi changé nag li fi nekkoon parce que gis ngeen école bi ni mu mel ñi fi jànge woon en 1960 bu ñu ñëwee du ñu tumuranke parce que lépp benn donc ñu am yéene nag am pas-pas euh, pour euh, defaraat euh, gox bi ànd ko ak ñëpp incha allah.